jataay bi nag li ko waral jàpp naa ne ñépp xam nañu ko sax parce que actualité la bu metti ñëpp ndax ku ne xam na ne ñun ñii toog li tax ñu ñëw fii ci seesu Diomaye président dañoo bokkoon ci benn karawaan karawaan bi ñun euh, ñii toog ñoo ko sanc di ko def sampoon di ko def yaakaar naa ne am na ci ñun ñu bokk Pastef waaye ñu ëpp ci ñun ay sympathisants Pastef lañ rek yoo xam ne dañu yéene suñu candidat Bassirou Diomaye Faye mu gagné élection yi te ku ne xam na ne bi ñuy ñëw ci élection yi dañu fekkoon suñu candidat nekk ci prison ñu téye ko ba mënut a dem campagne loolu juraloon ñu ñu amoon xalaat man ak ku mel ne ñoom maam Paate Mbay nga xam ne nekku fi tey ak ñeneen ñoo xam ne euh, ñoo bokk ay gis ñu ne dañoo waroon a jéem a campagne te yoon bu dëkk ba sax lañ ko waajoon yàlla dogal euh, ñu sancé élec ñu fomm élection yi ñu ko fommee euh, jéggul biñ fommee élection yi waaw bi nga xamee ne fomm nañ élection yi yàlla dogal ñu jàppaat ko ñu continuer suñ gis-gis boobu loolu moo indi karawaan bi bi karawaan bi amee nag dem nañ dëkk yu bari yoo xam ne yenn yi ñoo fa dem ci suñ coobare yi bopp yenn yi ñun ñoo fa dem ci ndigalu suñu kilifa yi nga xam ne am nañ ko ci biir parti suñu waxee suñu kilifa nag euh, du weesu Ousmane Sonko mi nga xam ne moo moom liggéey bi muy moo jiite parti Pastef waaye ay leex naam yi nga xam ne ñooy ànd ak moom ku mel ne tey Birame Souleye Diop ku mel ni Amadou Ba ku mel ni El Malick Ndiaye ba ci ñoom Ngagne Demba Touré ba ci ñoom Makhtar Sène ñoom ñëpp suñu ay xarit lañ waaye nag bu dee lu jëm ci politique suñu ay kilifa lañ ndax ñoom ñoo samp mbir mi te ñoo nekk ci euh, instance bi ñooy voix autorisée yi ñoom dañoo am bëgg-bëgg rek di jàppale Sonko waaye nag fa ñuy réunion ak fa ñuy nase ak li Sonko bëgg dëgg dëgg ñoom ñoo koy xam kon ñoom danañ am droit sànq nii rek bi may ñëw jot naa ndigal ci kenn ci ñoom mu ne nañ fexe li ñu dese ci karawaan ñu eggalee ko Thiès mais loolu dinaa ci ñëw doon nañ bëgg a dem Diourbel parce que jàpp naa ne tey jii waroon naa bokk ci fi ñu waroon dem ñu muy Diourbel parce que Makhtar Sène moo fa nekk moo ñu waxoon ne nañ fa ñëw dooleel Euh, amoon nañ pour ànd ak El Malick tamit dem Jolof loolu lépp dafa nekkoon ay ndigal yoo xam ne ñoom bu ñu ko joxee en tant que ñi nga xam ne ñooñu supérieur dañ koy def comme ñoom ni ñu ko diglee loolu ci lañ nekkoon di ko dox muy loo xam ne jàppoon nañ ne bu yeggoon dina bokk ci loo xam ne dina may doole suñu candidat ba élection yi ni ñu ko bëggee mooy premier tour ñu gañe loolu nag mayoon nañu ñu wër Ndakaaru fu bari def naa ñi koy topp Euh, loolu dinañ ko xam ñu jógee Ndakaaru euh, daadi di wutali bitim euh, Sénégal bi muy région yi région bi ñu njëkk a dem bi ñu jógee fii dem nañ Louga Louga ku ne xam na ne am na ay responsable politique yu mag yu fa nekk ku mel ne Mamour Diallo ñoom Aminata Mbengue Ndiaye ñoom Mbéri Sylla ak ku mel ne Moustapha Diop tereewul ñun ay gan lañ fa dem nañ ñu fekk fa Abdoulahan Ndiaye ñu def karawaan yu mag yoo xam ne ay karawaan yu mag yoo xam ne euh, li ñu jublu woon am nañ ko nañ ko bëggee woon te amul xeex amul xuloo fii ci Dakar sax jaar nañ ci fu bari foo xam ne parce que Sénégal foo dem rek am na leader politique bu fa dëkk ñu jóge fa dem nañ ndar ndar tamit nekk na dëkk boo xam ne ku ko xam xam ne dëkku politique la am na ay leader opposition yu fa nekk ku mel ne Mansour Faye dem nañ fi ñu bëgg a jaar fépp ñu jaar fa euh, te amuñu fa benn violence boo xam ne dégg nañu ci ba ci Dakar gii Sacré-Cœur Mermoz jaar nañ fa jaar Médina jaar euh, ba benn tali euh, waagu ñaay yaraax fu ñu bëgg a dem rek ba ci Pikine dem nañ foofu amul kenn ku ñu mës dégg ci ay violence wala ay xeex wala xóoloo ñun dañuy dem jàllale message wax suñ programme mu candidat bëggal euh, nit ñi soññu leen pour ñu génn wate ñu jëli seen carte d'identité daal di wàññeeku dem ñibbi parce que coalition bi ñu ko seet ñëpp ay kilifa lañ amul ci kenn koo xam ne di nga tooñ wala ngay dugg ci naka sudul noonu loolu laa bëggoon nit ñi xam ko kon bu ñu demee tey ba àgg Daaru Muxti coow am fa ah kon dañuy jàpp ne ñun de loolu taxuñu woon jóg li ñu taxoon a jóg dafa bokkoon ci ñu def li ñuy def ba mu yegg am ci ndam tam ànd ak jàmm waaye li am démb Daaru Muxti du jàmm parce que lan moo am Daaru Muxti mooy démb dañoo jóge Louga dem daaree kokki dem jëlleerlu si la jóge fa dem caameen parce que démb dañu ne woon dañuy def ci dëkk dëkkaan yëpp jóge fa ñëw ngumba ngéewul fa la ñu ndogoo ci Mansour Ndiaye jóge ngumba ñëw Kébémer xam naa nag Kébémer foofu la coow li tàmbalee doonte foofu amul coow parce que Kébémer dafa nekk dëkk boo xam ne Euh, dafa nekk ci département bu euh, Daaru Muxti ci même département bi la te Diagne Fada dafa engagé wu ci kanamu Amadou Ba ne dina ko gañeel département bi bi mu ko koy wax nag daf ci yaakaaroon sagata ak ku mel ne ay saam yabal ak sa ak ak ak euh, ak Daaru Muxti moom xam na ne du am dara parce que élection yi jàll yépp dañ ko ca dañ ko dañ ko fay gañe dañ koo dumóoyu jaar gi ma jaar nag ak coalition bi Daarul Muxti mu xumb lool ñu dalal ñu euh, te taggal ñu ñu def lépp mu koy gis ci live yi xam naa ne gis na ah ñi kat fi ñu jëm bu yeggee du baax ñu jóge Daarul Muxti ñëw sagata sagata dëkk la boo xam ne du dëkk bu mag lool waaye la nekkoon ci am mbooloo da wax ne sax ñii dëkkuñ ci biir dëkk bi parce que dëkki àll yi sax lañu takk seeni saret xaarañu ci digg ndëkk bi biñ ñëwee ñu ànd ak ñoom ñu fekk fa coordonnateur u Pastef ñu def nañ defoon mu gis na fii kat mokk na rumbux xam naa ci la ne sëñ baaram mii ak coalition bi mu àndal su ma leen bàyyee fiñ ma jëmee baaxul bi ñuy ñëw daaru maxti ñun xamuñu dara ci lu xew parce que dañoo jël si ci buntu dëkk bi ak coordonnateur ba ak euh, ña fa nekk ñoom daan ñu daaru ak euh, waa kër Ousmane Sonko ya fa nekk yépp ñu ànd ak ñoom di way di karawaan ba yegg si ci rond-point bi ñuy wax pono bi ñu taxaw parce que booba daanaka deux heures du matin jëm trois heures du matin jot na parce que daaru rek bi ñu fay dugg minuit jot na ñu ne fii la ñuy taxaw pour jël kàddu yi bi ñu taxawee pour jël kàddu yi ah ñuy wax ba mu yàgg ci lañ njëkk a ñëw garde corps yi ñëw ne ma ah am na benn xale bu jigéen boo xam ne ci suñu ndaje mi la bokk ñoo ànd ak moom ñu ngi toog dend ak man waa kër Diagne Fada yi dañ ko kidnappé ma ne kidnappé ñu ne waaw fekk booba sax maa ngi def discours ma ne ko wax ko ndànk parce que loolu bu ko mbooloo mi déggee dañuy dem attaqué ji ñëpp ne dañ koy nangu ji te loolu day indi fitna bàyyi. bu ma paree discours dinaa la wax lu ñuy def bi ma noppee discours ma laajte wax ko ñu ne ma ñu ngi ko téye foofu ba léegi ma ne bu dem bu ñu ko rey duñ ko def dara nañ ko bàyyeek ñoom dinañ ko bàyyi nestu ñoom ñu ñëw ne ma léegi bàyyi nañ xale bu jigéen bi ñu ñi toog ci man sama wet nii bàyyi nañ ko kon mi ngi ñëw na ma jëlaat micro bi ku seetaan live bi rek di nga ko gis ma jëlaat micro bi ne leen dama leen di ñaan waa Daaru Muxti ni ma gisee département bii euh, dinañ ko gagné quatre-vingt pour cent te loolu du neex ñi nga xam ne ah ñoom lañ ko seqal mais nit boo amee sa ndam bul nangu kenn provoqué la ba ngay jotee moom ma wax leen loolu ñëpp tàccu ñu daal di jëm Touba parce que kat pare woon nañ Daaru Muxti ba war dugg nag Touba parce que dañuy continuer woon suñ karawaan bu dul woon ak xew-xew bi am tey ji Mbàkke lañ waroon a yenn ji euh, parce que dañ ku ne xam na ne président Ousmane Sonko dafay ñëw suba ñu bëggoon a dem karawaan yëgal ko nit ñi ba noppi jënd ay nag ak togg fa ay xéewal pour suba bu président Ousmane Sonko ñëwee ñu mën a def teranga parce que ñun loolu lañ bëggoon a participer ci xew mi suba waaye loolu mujjul am parce que attaque bi dafa mujj jural ñu ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne dinañ ci ñëw parce que ñi toog ñëpp dinañ ci indi ay leeral jafe-jafe yooyu nag moo tax ñu dëpp ñëw dakaar moo tax ñu wax ñu ne dañuy wax ak askan wi bañ xam euh, kooku di Modou Diagne Fada li mu def parce que bi ñu jëmee Touba toll ak mu këram moom nag dëkkul ci kaw tali bi da ngay jaar ci benn koñ dox lu xaw romb ay kër foofu la dëkk moom dëkkul ci kaw tali mais mbedd mi këram nekk dafa gaare ñetti oto ànd ak ay nervi ak ay fetal fetal bal rayal dinañ ci ñëw parce que moom dafa juum ci ni mu doon defee coup bi parce que ñun mënuñoo dëkk daaru waxti di ay doomi daaru mu bëgg ñoo faagaagal safoor bii dawal dëkk daaru ñu dëkk daaru xam nañ gone yi ña ñetti oto yëpp safoor ya ca nekkoon xam nañ leen bu baax nii ñu xamantee parce que ñun ñoo bokk dëkk Touba ak Daaru benn la ña nga xam ne itam taxawoon nañ fay nekk nér bi am na ci ñum jëlee Dakar fexe nañ ba xam nañ tudd ñoom waaye am na ci ñoo xam ne Daaru la leen jëlee ñoom it xam nañ leen ba xamante nañ ca dëkk ba kon loolu dafay yomba li jël bi ci des mooy ñun karawaan lañ yoroon li doon def live boo boolee seen YouTube yi ak tiktok yi ëpp na fukki seet kon donc foofu amul lenn lu mën a romb fetal yi ñu ak jaasi oto bi ni mu ci kaw mbooloo mi lépp mi ngi ak ñun ay preuve yu leer lu ñuy fen sos lu ñuy wax léegi bi nga xamee nit ñaa ngi romb man sama oto laa jàpp ne man la doon bëgg rey parce que bi oto journaliste yi romb na oto bi def sono bi romb yeneen oto yu daw yu romb bi samay oto yu tolloog mbedd mi la benn oto daw cent à ñëw taxaw ci digg tali bi ba nga xam ne man amatuma fu ma jaar fi may feree ne oto bi man dawaluma sama safoor fi muy laale oto bi rek beneen oto bi foncé rek bëgg a yéeg sama bëgg a bëgg sama oto sama safoor gis ko gaaw mbas yokk vitesse am génn bi ñu xamee ne rëcc naa leen ci lañ soqe ay bali fetal may dégg ñëpp a koy dégg ñi ñaa ngi nii danañ ko wax ndax ña yoroon fetal gi sax ñun xam nañ leen ñu soqe ay bali fetal jël ay xeer di sànni ba toj sama vitre oto euh, coordonnateur Pastef Daaru Muxti muy euh, nan Mbaye sax seexu naa bay ak euh, Thierno Mbaye professeur Thierno Mbaye dañoo fekk otoom dañ ko dàq ba jàpp ko moom itam toj otoom ba mokk rumbux toj vitres yi def ko lu nekk gaañu ko dinañ ñëw ci blessé yi ñu am ak yooyu yëpp mais dama leen di wax rek ni mu demee di loolu amee ku ne xam na ne ñun pick-up lañ yoroon xale yi jigéen yii yu ci bari pick bi lañ yéegoon ak xale yu góor ñu nekkoon ci pick bi lañ leen a dàq ji mbooloo mi dafa bari oto bi du mën a daw ñi dàq leen daanaka xaw leen a jot di dóori xeer ci kaw ñi nekkoon ci kaw pick-up bi ba li ci toj ay bopp ñenn ñi dañoo tiit ca damm am nañ ñu ci am ay damm-damm yu bari ñenn ñi dañoo daanu ca péeru wuñ mais dañoo daanu biñ daanoo am na ci ko am jafe-jafe ndigg ba ma nga ca hôpital ba ñu bàyyi ñi am damm-damm yi seeni rajo mi ngi nii loolu lépp dinañ ci ñëw pour wax leen rek jëf ji ni mu toll bi nga xamee ne am nañ ñu cëppeelu ba fii may wax ak yow nii am na ñaari xale yu jigéen yoo xam ne ci karawaan bi lañu bokkoon gisatuñ leen te am mënatuñ leen a woo ba jot leen taxaw nañ daaru moxti entre quatre heures du matin ba sept heures huit heures lañ gën daalu parce que dañ doon bañ blessé yi tamit di am jafe-jafe ci lañ mujj ne nañ obligé ñëw suñu noppee ñoom làmmiñu daaru ak ak ñeneen ñi ci des ñoom lamin ñoom lamin lamin defe naa ak euh, njaay Touba ñi ngi foofu ñoom pour rechercher ba xam lan lan la ñuy am ci ci ci ci ci ci ci seen information ñoom léegi lii lépp nag bu amee tañ nekk ay doomu senegal Sénégal ñu kenn doon def suñu warugar muy campagne électorale jot ñu sol suñu dàll jël suñuy moyen bàyyi suñuy yitte di liggéeyal Sénégal di dem ci ay dëkk yu wuute saagawuñ kenn dóoruñu kenn xeexuñoo kenn parce que dem nañ ci lu ëpp ay ay gox yu wuute fréquenté nañ ay daje nañoo ay politiciens yu dul jeex parce que Thierno Alassane Sall rek mën naa wax démb ñoo yendoonoo Louga bi ñuy génn ngumba ñu ngi daje coalition Anta Babacar Ngom amuñoo kenn problème kenn suñ demee ba Daaru Muxti nag Diagne Fada gis ne moom dafa am jafe-jafe ci élection yii mooy ñaari jafe-jafe mooy dina perte élection yi benn deuxièmement jël na alalu Benno Bokk Yaakaar nax ko Amadou Ba jël xaalisam ba noppi mënta campagne parce que fu mu génn ñu yuuxoo ko mu ne na wut euh, beneen façon muy jaar ci violence loolu nag dinañ ko ko may duñ ko ko may su ma waxee duñ ko ko may nag mooy ñun duñ xeex di def suñuy propagande ak suñuy liggéey ba am suñu ndam téyeegul nii ci suñu loxo deux mille vingt quatre bii la vingt quatre mars région de Kébémer dama département Kébémer di ngeen fa dégg résultat yoo xam ne yéen ñëpp ay tëj seen nopp parce que dañ koo liggéey ba mokk rumbux kon duma yi nga xam ne moom lañ war a duma Diagne Fada moom lañ ko war a duma dañ koy xaar ci bureau de bi mais dafa am leneen loo xam ne duñ ko nangu. mooy buñ bu ma nee dinañ ko nangu mooy dinañ ko ko muñal ba de ba 24 mars bii dimanche soreetul dinañ ko wan ne ko daaru moxti moom moomu ko ña fa nekk tamit duñ ay jaamam jëndu leen am nañ droit choisir ku leen neex te ñooy wateel Ousmane Sonko tànn bulletin Bassirou Diomaye fay te ñoo tay noonu lañ koy defee mais li wax ne du ñu ko nangu mooy histoire retiendra Modou jaañ Fada dafa góorewul du nit ku gore parce que moom dafa nekk xale bu ndaw nekk UJTL PDS di liggéey daaru muxti di ko sagoo fu mu leen woo ñu wuyu ko bi muy ànd ak Ablaye Wade ba ni Ablaye Wade daanoo amul benn élection bu am te Ablaye wàdd gañewul daaru moxti te Modou Diagne Fada yi tax mu gañe 2007 bi ko Ablaye wàdd investir da neexu ko dafa gedd Ablaye Wade def coalition waar wi ñëpp topp ko entre Daaru Muxti ak Touba ba mu am defe woon naa ne quatre députés xaw ma trois amoon ci satisfaction bu mag bi mu noppee na day àndaat ak Ablaye Wade ma mu geddoon waa Daaru Muxti toppaat ko bu àndaat ak Ablaye Wade Diagne Fada dégg na maire Diagne Fada dégg na député ay yoon dégg ministre bu ne dégg DG te lool lépp déggu ko ci gratuite grâce à votu waa Daaru Muxti kon su demee ba waa Daaru Muxti taxaw jublootuñu ko defe naa ne amoon na beneen façon bu mën a jaar bu bokkut ak di wut ay fetal di leen fetal wala muy wut ay jaasi di ko caw seeni doom parce que man maa wax samay blessé mais hôpitalu Daaru Muxti tey ku mu demoon ma nga fees dell parce que la nekk ci ay blessé yuñ cor jaasi ñii daanu ci tali bi ñii seeni ba kanam toj ñii ay xeer dal leen kenn mënu ko wañ te lépp ay jëf la yoo xam ne moo ko jëf te moom bakkan la doon wut parce que mbooloo mu tol noonu dama leen seetaan vidéo mi ngi sama page Facebook mbooloo mu tol noonu ku mën a jël ñetti oto foncé ko ci seen kaw ci ay xale ci jigéen kooku da ngaa bëggoon a rey yàllaa ko dimbili rek yàllaa ñu dimbali loolu amul te nag 2007 bi mu nee dafa am ak problème Ablaye Wade dem samp waar wi Ablaye Wade jël ku ñuy wax na lool teg ko fa mu wutu ko Daaru Muxti jaañ Fada xawoon a tiit ne nit ñi duñ bàyyi Ablaye Wade di ko topp coow lu mel nii la andi woon Daaru Muxti xeex guddi xeex bëccëg ba ku ñuy wax euh, Moodu Diop frère la ci lan moom Mandoumbe Diop mi ñuy wax lan nañu daaru frère am ci loxol Moodu Diagne Fada la des ci xeexe politique yooyu ci la ko Moodu Diagne Fada rey ci anam gu mel nii 2007 ñu bàyyi ko mu jàll parce que dañ ne woon ci biirum mbokk la su demaatee ba tey mu demaat ba tey mu gis defetam continué waat di recruter ay nervi wut ay fetalam fas yéene jëlati bakkanu doomi waa Daaru Muxti yi ñun dañ naan ko arrêté Diagne Fada dootu fetal kenn Daaru Muxti te dootu fa foncé ci kaw nit te dootu fa politique ba fay fol ba fay tas ab ful parce que ñaari ñaari gàcca dinañ ko ñaari yoon nañ ko xeex ak moom mooy élection yi dinañ ko ko gañe te ñun ñii toog ak victime ya nekk Daaru Moxti kenn ku ci nekk dinañ defar plainte collectif avant ñuy def conférence de bi dem nañ ci suñu avocat maître Abdourahmane Diallo wax nañu yoon wi ñuy jaar dinañ defar plainte boo xam ne Cheikh Tidiane Ndour procureur Louga la ñuy dem jébbal ko ko ñaari plainte lay nekk parce que dafa def enlèvement suñu bokk mii daf ko enlevé jël na oram dóor nañ ko nangu ay weeram gaañ ko depuis trois heures du ma ba léegi kii mënul mënul mënul nekk nit parce que dañ ko xooxatal teg ko ay fetal te nag nekkul lu ñuy làmbur Modou Diagne Fada ci boppam moo ñëw taxaw di wax ak kii kii ne ko xam naa la yow mu ne ko léegi looy wut sama koñ ak nangam nangam te beneen preuve bi am mooy bi coow li amee mu dégg fetal yi tàkk moom tiit na tiit na mu téléphoné sëñ Abdou Mbacke mu bàyyi Cheikh Khady men téléphoné ko ne ko ñoom dañoo ñëw sama kër di ma provoqué te waxul dëgg ñun mënuñoo yor ay live di ñu liveal ñu mën a wax loo xam ne nit ñi gisuñu ko dem leen ci live bii ji rek ngeen seetaan ko fi mu jeexe ñëpp danañ gis mu demee ñoo ñu fekkee ci kaw tali bi ñuy dem jotewuñu moom dara mu song ñu mu téléphoné Cheikh Abdou ne ko léegi ñoom ñoo ma song moo tax booy yi tiire fetal kon donc def na aveu deuxième aveu bi ci des mooy bi mu demee ba xamul accident bi nu mu demee est ce que am nañu dee est que amul ñu dee mënul nelaw mën naa wax ne quatre heures du matin ba cinq heures du matin ba six heures bi ñuy génn daaru mi ngi topp coordonnateur daaru Pastef daaru Muxti di ko téléphoné di expliqué li mu bëgg man xam naa ko waaye du ma ko ko mooy affaire sëñ Touba def lu la neex pare naan moo ñoo bokk sëñ beeg nañ ko waxtaan ak du ma waxtaan déw ma ci sëñ Muntaxa parce que xam naa ci loolu la jëm déw ma ci sëñ Bas Anta Ñang déw ma ci benn kilifa diine dégg liñ bëgg mooy dem ci yoon au niveau de procureur déposer suñu plainte toppante ko ak moom parce que moom da dul nit rek bu fekkee doolee Amadou Ba wala doolee Macky Sall la yaakaar jeex na parce que man ak ñii ma àndaloon ak yéen sénégalais yii di seetaan xam ngeen ne élection yii di ñëw premier tour lay am man maa leen ko wax lu leer laa leen wax amul werante sénégalais yi ci seen bopp dañoo jël décision saase seenum réew jaañ faada xam na ko waaye day dof dof ko su fekkente ne nag doole yi Modou Diagne doole yi Amadou Ba wala doole yi Macky Sall moo tax mu jàpp ne la woon lawoon 2007 mooy rey nit dara fekku la ci moo fi nekk ba tey xamul li xew d'ici semaine prochaine dinañ ko déposer plainte te li fiy neex d'ici semaine prochaine moom dootu nekk dara ci Sénégal dina yomba lijjanti lool yomba jàpp lool te dinañ ko def ci kaaf li ma ko mën a baaxee nag mooy ñu ko jàppee moom man mën naa koo may añ ndax sama mbokk la danaa wax madame bu koy ci bal boor waaye Diagne Fada moom dana dem prison parce que ay nit ku foncé ci seen kaw tiire leen ay bali fetal toj seeni oto saccagé ko ñëpp xëy dem hôpital nga nekk ci dëkk bi di dox loolu ku ko def ñun buñ la bàyyee ñun ay criminel lañ parce que bu subaa beneen politicien dina mer def ko loolu moom il faut mu leer Modou Diagne Fada dinañ ko topp ci yoon lu ñu yoon may dinañ ko jël amul bàyyi amul arrière jërul na ngay dem ci benn sëriñ di ma kalaame yaa ngi woote pour ñu négocier ko négocier wuñ xamadi ak yaradi ko gi nga nekk ci dëkk bi danañ ko lijjanti parce que politique affaire gentleman la du affaire bon xol du affaire naan say vayen rek ñëw di fonto nit ñi dégg su fekkente ne da ngay politique ngay gañe muy neex soo demee ba pert da ngay nangu ne perte nga yow ak Amadou Ba dara du ngeen ko am ci élection yi man maa la ko wax waaw waaw Amadou Randal Ba ak ak Modou Diagne Fada Modou Diagne bu fekkente ne dafa jàpp ne Daaru Muxti bàyyam a ko sanc wala moom moo jur ña fa nekk ay jabaram lañ wala ay jëkk mooy suñu bàyyi nañu ko wax bu fekkee ñun waa Daaru amuñu droit ñun xool politiciens yi ne kii moo ñu neex moom la ñuy àndal suñ ko defee jaañ fada dañuy duma ñun bañ wateel ko su fekkee loolu la moom man xamatuma ci dara te moom loolu la ñu jàppee parce que nag jaañ fada problème bi mu am daf ko xamul moom dafa séq ak mbir mi ay gor te xamul daaru muxti ay goro fa dëkk lim am mooy daaru muxti ba mu ba mu daan ànd ak lay Wade as ngone su tuuti la woon ñeent fukki atam matut woon ñi di ko dimbali di ko jàppale politicien bu ne nuyu nañu faale wuñu mu dem ba mu yàgg mu dëkk ci randal xaalisu réew mi te loolu dinaa ci ñëw beneen yoon parce que Sonacos gii moo gen mam fa wuutoo seen tojaange yi ñu fa def yépp dinaa ko génn dinaa ko wax te jaa ngi faada loo yaakaar ne xaw ko xam naa sa néeg sa ruqum néeg sa ron sax la ka fay denc bu ma ko bëggee xam danaa ko xam gis nga randal ak tappale ak càcc gu metti gi nga nekk Sonacos dinaa ko génne bëccëgu ndara kam yow ak gain sax laay boole parce que du ma yem ci yow jëkkëri Ndeye Saly Diop yoo jooju la fa njëkkoon a nekk nga jiitu ko fa yéen ñaar ñëpp a yem ay tappalekat ngeen sàcc rek ngeen nekk Sonacos guddeeg bëccëg di tappale xaalisu nit ñi la ngeen fay jël bu ngeen ko fa bàyyi woon Sonacos réglé woon na bu yàgg mais ba demee ba Sonacos gerteeg daaw nga ko fay fekkaat xam nga ne liggéey tappale ngay def loo am nag loo sàcc di ko jëndee kër fii xam nga luy sa problème waa daaru yow yaa ngi dëkk cité kër góor gi man ñëw naa fa ñëwati fa fekk seetuma la woon nag sa frère laay seet waaye jaañ fada maa ngi leen di wax yéen waa daaru moxti kenn nit ku dëkk daaru ku ne mas na maa dem kër jaañ fada fii ci ndakaaru amul bu ñëwee ndakaaru dëkkatul daaru ab complexe la bëggut a gis ku dëkk daaru bëggut a ko dëkk daaru su demee ba élection jot pour moom waa daaru ay xar lañ yoo xam ne su ko neexee daal toog ba mu neex ko mu for xaalisam ñëw jënd maire yeeg paay après ñu wateel ko mu jëlaat ak otoom ñëw bañ na ko ba élection yii mu commencé daaru di naqari ci moom sax léegi tuxu na këram nga vidd la bërki démb la la la jaañ fara ñëw daaru moxti bërki démb te xeexal ko fa anti bi mu ñëwee tàmbalee karawaan boo yi ne ko du ci dal maire bu mu jox cinq mille ñu ne ko jëlal bu bu ñun kenn duñu jënd mu xam ne lii mënta sotti léegi rayante la bëgg a def rayante boobu nag man maa la wax dinañ ko saafara ñun doomi daaru moxti yi parce que plainte bi collectif la te nag bu dee justiciable nga maanaam dangaa nekk koo xam ne yow yoon mënu laa topp ab Wade ak Macky Sall de mënal nañ la loolu waaye seen nguur jeex na seen nguur daanu na te nguur gi di fi ñëw xàmmeewul ay tappalekat dinañ la pelent te Basiiru Jomaay Fay mooy nekk sa président du ma faral de waaye du la faral yow du ci aar kenn nañu bàyyee ak yoon li ñu yoon may ñu jël loolu moom na la leer nañ di la waxaat encore une fois waatal naa la ko ci téere ci suba damaa fekk ma xaw tàng waaye man du ma waat ci sëñ tubaa ay caaxaan billaahi wa rabbul kaabati lii ma wax nii la demee jaañ faada daf ñu attaqué fetal ñu toj oto yi lépp kenn mënu ko fabriqué mi ngi nii ay vidéo la àndal est-ce que nag ñun dinañ bàyyi benn nit politicien boo xam ne dafa jàpp ne moom politique victoire daal la ci war a am bopp Yékini danaan daan ba mu yàgg léegi nekkatul roi des arènes daanu na dégg nga ku mën a andiwaat Yékini ci làmb ji nag muy daan mënoo tax jaañ Fada da gañewaat dara Kébémer fuuti na dégg nga léegi nag doomi Kébémer doomi doomi doomi kii seen bopp yi dafa tijjeeku doomi daaru moxti yi xam nañ li xew làmmiñu daaru yee nañ ñëpp Cheikh Omar Bamba Diop yee nañ ñëpp ngañ jàpp Pape Mamadou sekk tëj ko ñaari at giñ ko force spéciale jàpp lu ëpp ñaar fukki doomi daaru muxti def ci kaso bi di foyee nit ñi ba mu neex leen ngeen naan ay amnistie tappale bëgg fee xëy demaat ci maire yeeg paa yi ñu ñàkk jom nekkuñu daaru ba leen di wateel diggante Diagne Fada ak Daaru Muxti jeex na digg ta Diagne Fada Daaru Muxtee ko bàyyi ci politique politicien la boo xam ne yambar la yambar la boo gisee démb ma lay wooyee Daaru Muxti ma ne la jànq bi yow jànq sax moo la tane parce que jànq ji sax souvent ñu taq suuf mais nit koo xam ne yow sa àdduna yëpp toilette loo am jënd ko jënd ko lippaleef di lippaleefu ah non yooyu duma ko wax sax li muy guux ak yooyu moom moom affaire am la waaye na bàyyi te toilette ba nga xam ne yow kenn xamut looy nuróol dégg nga yooyu ngay bàyyi te nekk góor tuuti te nekk gor soo àndeek nguur bu daanoo nga xam ne dafa daanoo nga opposé wu dégg nga waaye yow sa àdduna yépp nongu nongi topp ci pouvoir yi pouvoir bu daanu nga dem ci ba dem seen pouvoir bii nag dina daanu te suñ bos bi doo fi dugg ndax ñun duñu héberger sàcc Basiiru Jomaay Fay du ànd ak sàcc bi ci des nag ma koy daaneele mooy déclaré nga ma guerre nag waaw man mii nga fekk ma toog nga fetal ma toj sama oto mi ngi nii te jëndaloo ma ko yaa ko toj gaañ samay gone damm ci ay nit li ma doon def muy karawaan bii ma doon def mu neex ñépp tey jii bi ngi nii ñi ngi ñu toog fii li wax tam heure bii waroon nañoo fekk ci liggéey bi lii nga ma def nag maa ngi lay défier baye boo loo xam ci saa yi rek nga def ko parce que man danaa xeex ak yow te man maa xeexal te maa ngi lay waatal ci alxuraanul karim Sénégal dinañu àtte ñëpp daaru muxtee ngi fi Touba ngi fi nawle yaa ngi fi ndax ñoo bokk lépp xam naa la xam nga ma nawle yaa ngi fi wallahi lancim li nga def nii di ko tuub ba cëgu ndara kàmm lenn nag man nañ mooy nga génn nga wax ne yow ab reykatu nit nga da ñoo bëggoon a rey da ngaa màndi woon xaw ma la dal après ñu doo ko xool lu ñuy def su dul loolu nag baye boo nga defar say bagage sa xam ne kaso nga jëm waaw léegi nag damay jox ndaw sii li may wax lépp nag dama ko doon wax parce que daf ñu tooñ dama koy wax ba mu leer nañ ndax xam naa ko ku ñeme yàlla la ku ñeme fabriqué la ku lu mën a sos la xam naa dans trente minutes nga seen ko muy fonkali tuñ di yuur di wax lu mu dëgg waaye li ñuy wax lépp photo vidéo film ak kayiti daktoor mi ngi nii teg ndaw sii toog mi ngi nii dinañ leen ko jox moom ci boppam lañ kidnappé laata xeex bi di am moom dafa am pelent boppam parce que dañ ko kidnappé woon enlèvement nag xam nañ lan la ci yoon wax léegi nañ leen bàyyi ndaw si moom dana leen expliquer nan la seen bi demee bismillah